su ma nee il cherche à à ce que le pays s'embarrasse euh, il est kii il est xalif ou quoi bon loolu en réalité c'est toujours euh, à mon avis euh, interprétation moi je reste dans le cadre de l'analyse journalistique un peu l'analyse journalistique me pousse à dire que mhm. c'est un leader politique mhm. boo xam ne jamono ji jàpp nañu c'est le chef de l'opposition jamono ji jàpp nañu ni mooy la personnalité politique bi gën a placée pour mën a remporter le scrutin présidentiel moom voilà bokk na si ñi gën a lu ñu jàpp donc de ce point de vue là woote si manifester mi ngi dépendre rek si langage bi nu mu ko waxee ak nu mu ko war a mën a interpréter donc de ce point de vue là man si interprétation propos duma si am jafe-jafe parce que dama koy situer toujours si benn niveau de compréhension euh, euh, d'analyse boo xam ne damay jàpp ni homme politique bi ak na mu mel la ak na muy waxee ak na mu déggee wolofam ak na muy déggee français naka la ko waxee man ko dama koy interpréter noonu et on a entendu fii des propos beaucoup plus beaucoup plus violent ko plus virulent. c'est moo tax ma lay wax ni am loo xam ne di nga ko dégg jamono ji gërëwaar mu nekk lu bees. mu nekk lu bees xëy na dina bees ci sa nopp wala bees ci nopp Abdoulaye Mbow waaye boo ko jàngatee bu baax du bees encore une fois manifester saa bu ko autorisé au Sénégal wax ma si Macky Sall de mhm. président Macky Sall de te ci Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade saa bu ñu autorisé manifestation doo gis débordement musul ma ko man gisugu moom manifestation boo xam ne dafa am débordement bul fàtte encore une fois un moment aussi solennel boo xam ne Abdoulaye Wade recevait plus d'une dizaine de chefs d'État plus d'une dizaine de chefs de gouvernement ay woykat yoo xam ne cest à que télé rek nga leen daan gis ay traces ak ay yooyu nga leen daan gis ñoom ñëpp dajee Sénégal lors de l'inauguration du monument de la renaissance africaine bés boobu ku jékki ne dañuy manifester. Mm-hmm. Ousmane Ngom ne moo lank kenn du fi manifester takk der génn fu ne gendarme yi policier waaw xam nga yaa ngi dégg char de combat yi taxaw mais te pourtant boobu xoolal Sénégal ñëpp tous les regards du monde étaient braqués sur le Sénégal par rapport ak événement bi ni mu toll woon mais ce jour là ay ñoom euh, ndem si yàlla sëñ Abdou Aziz Sy Al Amin yàlla na yàlla yëkkati ko euh, euh, ferru ko àjjana si ak ak ñeneen dañoo woo Abdoulaye Wade def intervention Abdoulaye Wade jox instruction Ousmane Ngom ne baleen ñu ñu manifester. Mm-hmm. bés boobu jamono bi muy feetu fii ak ay président ak ay ay chef de gouvernement opposition bi jóge na école normale supérieure dox ba fii nga xam ne moo di rond point Gédo donc encore une fois gis nga démocratie c'est des sacrifices démocratie c'est des ouvertures démocratie c'est des conciliations oui. démocratie c'est des compromis mais on ne parle pas de démocratie avec véritablement une approche qui pourrait être teintée d'anarchie waxuñu loolu mais encore une fois dama ne gis nga l'opposition bi fi jamono ji Sénégal dañ ko war a bàyyi say mën war a manifester ñu euh, te période bi may leen ko jamono may leen ko ñu manifester si jàmm tëgg way mbiib sifflé la bu ñu paree dañuy daal di dem seen bagage midi moo gën waaw <laughs> du am coow te grec te gis nga tey boo interdire xoolal boo interdire xoolal tension bi ñaata ñaata sur le plan économique Pape Malick xoolal xoolal lu ñuy perte xoolal ñaata boutique ñooy tëj xoolal ñaata jaaykat ñoo doon wuti di ñëw di jaay ndékki wala añ ñooy mujj toog seen kër regarde c'est combien de de chefs d'entreprise et de travailleurs qui ne vont pas retrouver leur lieu de travail c'est combien d'élèves c'est combien d'étudiants ñooy préfèrent toog seen kër parce que dañuy ragal mais loolu mën nañ ko mën war mën nañ ko moytu su ma nee leen sol leen seen ay ndoket fulaar leen peinture leen yore seen mbiib mbiib sifflet wax li ngeen di wax